ndax dafa dund li nga xam ne mooy ab pression familiale maanaam ay mbokkam ak xaritam ak jege ñaaleem ñoo ne ko mënoo ñàkk a wax moom Serigne Bassirou Gueye ci journal bi di Rewmi Quotidien daat nay wax ne mbooleem li xam ne Ousmane Sonko mag ma koy tuumal ci dëgg ndax nee na Ousmane Sonko li may ci nee dama ko a teg loxo beneen bi jël ay éléments yoo xam ne daf koy taqal dugal ko ci li nga xam ne mooy PV yi beneen bi nee na Ousmane moo wax ne man dama jël ay photo dugal ko ci PV bi Serigne Bassirou Gueye ne loolee bokk na ci li nga xam ne saa su ne ko Serigne Bassirou Gueye nee na su bëggoon a jàpp Ousmane Sonko lan mooy tere jàpp ko ndax Sonko nee na commandant gendarmerie ci complot bi la bokk ministre de l'intérieur ci complot bi la bokk ministre de la justice ci complot bi la bokk président de la république ci complot bi la bokk nee na bu ñu bokkee ci ab complot lan mooy tere ñu teg loxo Sonko ab laaj la boo xam ne Bassirou Gueye moo ko samp ni ko démb nee na mënutoon gën a deli moom Serigne Bassirou Gueye ne li mu tànn mooy ab enquête préliminaire ba tey ci biir journal bi moom Serigne Bassirou Gueye nee na Ousmane dafa mel ni dafa jànnaxe dafa mel ni xamul jamono ji ab dossier waaye li ko intéressé mooy lu jëm ci wàllum politique ak di ma saaga ba tey ci journal bi di Libération Vox Populi L'Observateur ak Le Quotidien La Tribune moom Serigne Bassirou Gueye daan nay wax ne Ousmane Sonko PV bii nga xam ne moom lay wax ne mooy original moo gën a doy waar ci mooma boobee moo gën ba ci digg ba mu jël ko yeggaleel ko boppam su doon dafa bëgg a taxal Ousmane Sonko rek yéen kaay gi délibération Serigne Bassirou Gueye nee na ñaari at li ma Ousmane Sonko y waxal dara du ci dëgg moom Serigne Bassirou Gueye ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na Ousmane Sonko na daal di publier li nga xam ne mooy rapport interne bu gendarmerie ba tey ci biir yéen kaay gi nee na Ndeye Khady Ndiaye kenn toppewu ko lu jëm ci wàllum progénitisme maanaam lu soxal wàllum jël jigéen di ko wutal ay góor ngir ñuy sëye ginnaaw loole tamit photo yi nga xam ne dugal nañ ko ci dossier bi loole di pour Ousmane Sonko waaye pour Ndeye Khady Ndiaye la Sonko faut mu xam ne du moom rek moo nekk ci dossier bi ndax li ñu koy toppee mooy lu jëm ci wàllum viol ak wàllum menace de mort moom Serigne Bassirou Gueye nee na ci PV bi am na juróom benn contradiction yoo xam ne Ousmane Sonko def na ko am na tamit ñetti contradiction yoo xam ne Adji Sarr def na ko journal gi di enquête nee na dossier Ousmane Sonko Adji Sarr nee na jamono ji mbir maa ngi ci mbedd mi ndax mbir mi yëfu privé la a mu jàll nekk mbirum judiciaire maanaam mbirum yoon jamono ji mbirum état la yéen a kaay gi de la Soleil Serigne Bassirou Gueye mi fi nekkoon procureur moom nag ma ngi avertir Ousmane Sonko di ko dànkaafu nee na su may ñëwaat ay élément lay ëndaale def naa neuf ans ci parquet bi maanaam neuf ans naa ko procureur junj nag doy na borom xel loolee kàddu Serigne Bassirou Gueye la ma ngi ci journal bii de la Soleil yéen kaay gi la Quotidien yor-yor xëy sampab laaj nee na Serigne Bassirou Gueye tëll tëll yi nga xam ne moom la nekkee ak rambax rambax jéeg tëb di dal lan moo ko fi jare ak Serigne Bassirou Gueye lan lay tiita jamono ji nag moom Serigne Bassirou wane na boppam dëggantaan complot moo fi am te Ousmane Sonko dañu ko complot yéen kaay gi de Les Échos ñu xëy fekk fa Bassirou Diomaye Faye nee na Serigne Bassirou mii ci boppam moo war a bàyyi fen bàyyi wax lu dul dëgg ci boppam la Bassirou Gueye war a defa ndax nag Bassirou Gueye bëri na loo xamante ni wax na ko niki démb maanaam dara du ci dëgg yéen kaay gi de la Réveil Quotidien nee na Serigne Bassirou Gueye taqal na ki nga xam ne mooy commandant Mbengue ndax Bassirou Gueye nee na photo yi nga xam ne moo nekk ci dossier bi commandant Mbengue moo ko fa na ki nga xam ne mooy capitaine Touré dafa mel ni àndul ak xelam yéen kaay gi de évidence nee na Serigne dafa génnoon pour leeral waaye nag dafa gën a lëndëmal mbir yi la gis nga ñu bare bari am nañu nag maanaam déception ci sortie Bassirou Gueye bi ndax gars yi ñoo ngi doon xaar wax joo xam ne daal wax ju tegu waaye nag wax ji nga xamante ni dégg nañ Serigne Bassirou Gueye wax ko maanaam waxi kasaw kasaw la wax la joo xamante daal mën nañu ko jàppe maanaam ay caaxaan yéen kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Bassirou Diomaye Faye moom nag daan nay wax ne rapport interne dara du ci dëgg te moom Bassirou Gueye nee na ci rapport interne bu gendarmerie commandant Moussa Fall kenn dégluwu ko nan la xamee ne commandant Moussa Fall kenn dégluwu ko te moom Bassirou Gueye nee na rapport interne bu gendarmerie amu la loole nag jaaxal na moom loole ginnaaw loolee tamit moom Bassirou Gueye nee na commandant Mbeng bi jiite woon section de recherche daf koo daal di seetal ci enquête interne bu gendarmerie te nag moom Bassirou Gueye nee na rapport interne bu gendarmerie amul ba pare da ci wax lii ginnaaw loolee tamit moom moo ko taxal ci rapport interne bu gendarmerie te moom Bassirou nee na rapport bi amul Bassirou Diomaye Faye ci biir journal bi nee na liy firndeel ne Basirou Gueye mi waxul dëgg nee na Basirou Gueye ci boppam moom moo wax ni ki démb ne capitaine Touré daat nay gis lu toll ci juróom benn ci contradiction ci Ousmane Sonko te sax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko maanaam gendarmerie moom daf koo dégluwul capitaine Touré dégluwul Ousmane Sonko ba ci gis juróom benn contradiction loole mooy firndeel ne Basirou Gueye mi mën na la li mu wax dara du ci dëgg te nag moom Basirou Gueye daat nay confirmer ne def na ay remarque loolee nag mooy firndeel ne maanaam dafa manipuler li nga xam ne mooy dossier bi yéen a Turbina nee na nag Aminata Touré janoo naag démb taskatu xabaar yi nee na mbir mi du ko bàyyi mu sedd dana ko yóbbu fa mbaxana doone benn maanaam ci biir mi ak ci bitim réewa te nag Macky Sall ci dafa war a xam ne nii muy bu doon Abdoulaye Wade noone la doxalee ak moom jamono ji du nekk président de la République ndax lu toll si juróom-ñaari milliards Taïwan wax ak ñi xam ne ñooy takk der yi force de l'ordre yi Aminata Touré woo ñu daal di boo xam ne maanaam dina ci dem ba sa ci pandaw ga te nag vrai combat bi mooy jàmmarloo ak régime Macky Sall bi journal bii di laas Aminata Touré nee na lépp ma xaar jamono ji troisième candidature Macky Sall na leer na du fi amee ci réew mi ndax nag Macky mi ñun ñëpp ñoo war a na nag booloo politiciens yi ak société civile bi ak askanu Sénégal ndax Macky Sall wii nga xam ne moom lay doxee dara jaaduwu ci ñëpp la ñuy woo ngir ñu jàmmarloo ak moom te troisième candidature benn yoon boo xam ne bind naa ne damaa démissionné ci Yaakaar Sénégal yéen a kaay gi de Le Quotidien Aminata Touré nee na na ray nee na na ray waaye nag du ma benn yoon a kaay gi di Vox Populi ñi nga xam ne ñuy waa benn bokk yaakaar ñoom nag nee nañu Aminata Touré daal ci intérim rek lay dox amul benn yoon boo xam ne violé nañ li nga xam ne mooy loi ci dàq bi xam ne dàq nañu ko madame Aminata Touré yéen a kaay gi di sunu na jàmmarloo ak B52 nekkul loo xam lu yomb la ndax di am physique di nga entraîné bi timit di nangoo xeex moom mbay njinga ci journal